yàlla bu baax di leen sant nee na lii dara féetewu ko kaw ndax yàllaa fi ne ak yonent bi nee na yonent bi loo def ci moom rek mi ngi ciy teg bëtam nee na bu du war ak moom dara du am nee na sëñ Bamba mu baax ma nee na moo nu wal yonent bi wax nu ko ban xam ko nan sant yàlla bu baax nee ndax ban da ngay wax ci tund yu ba fi mu waxi sëñ Bamba ak yonent bi rek la ndax sëñ Bamba tëggut ndey tëggut baay. tëggut ndey tëggut baay. yàlla. yàlla. yonent bi. alxuraan rek la tag sant bu baax. mat na ko. nee na yàlla ngeen gudd fan. ta mbarke. nee na fi lool. nee na sëñ Moustapha yàlla nga fi yàgg nee na yàlla na la yàlla aar ci barkeb Serigne Touba nee na mi ngi leen di sant bu baax nee na njabootu boppam gii bàyyi koo penk ba ñëw fi nee na ay waa këram képp lan bàyyi seen lépp dikk fanaan si nii nee na loolu seen xel war naa dal ndax ay kàddu sant la rek. ndax lépp ay kàddu yu sant la kon nee na buñ fi nekkoon ci taxawaalu lii lépp du man a am ndax ñu am fulla leen waaye dañoo gis lu leen jaral a jóg ñu jóg nee na bu fi am woon newoon doo leen fi gis mukk waaw nee na sëñ Moustapha yàlla nga fi yàgg te wér ci barkeb sëñ Touba nee fàtte woo dara ndax fii nee na fii nga fi la la baas njëkk a tiime ko njëkk defee am na barke de. am na barke de. yàlla na yàgg yàlla na yàlla aar la. digg ba ngaa waaye ba ngaa tamit digg diwu la sëñ Moustapha waaw nee na ba ngaa ji digg na la nee na yaa ngi yokku rek yaa ngi yokku rek barkalla waaw kon bu yeboo ñu tàllal loxo yi rek sëñ bi ñaan yàlla na ñëpp maase wax bàyyi sëriñ yàlla na ko suñu borom fépp xal fanam bi mu yàgg fii loolu ànd bu gër yàlla noonu yàlla mus ci fanam yi barke Serigne Touba doole xasida yi na ko ñëpp maasi ànd wax ndax mooy sunub sag nan góorgóorluwaat bu baax baax ci liggéey bii gone yu ndaw yi laay waxal jeunesse bi nan góorgóorluwaat bu baax ci liggéey bii ndax mooy sunub sag adduna ak alaxira nan si góorgóorlu ndax lii ñuy def sum daj la ay nit di ñëw jóge Touba di ñëw di njiit ci baax bi nan góorgóorlu ci liggéey bi nan góorgóorlu ci liggéey bi alhamdulilah daal leen loxoy ñaan